toppoon defar na leen ba ñépp jag tey koo ci gis lépp ma jag bis ci daañu leen fa wekk ngir barke baayu saaliw loolee nu teel nelaw nu nit moo tax nu jóg wuti këyil di jéema saddaay bayit ngir tagg seexi saaliw pastéeful Seexu Ibra Faal xaaral nu jëm ko fee misaal ndem doon na sax lusti misaal ngir topp seexi saaliw bu doon lu mel ni ak gu naat ba fees dell ki xob yàlla ca lu ko soob jox nu nu toppe saaliw saaba yi lañ bëgge woon ka yàlla yónni woon fi nun yàllan ko bëgg kii fi nun te di sey xisaaliwu séf ba maam ya toppe woon fonkeel ga maam ya fonke woon ak war ma jañ war maale woon séex bamba baayu saaliwu yal nañ ko toppe ki fi nun yal nañ ko fonke ki fi nun nañ ko war maale ki fi nun te moo seexi saaliw mboolem lu sun maam ya amoon ak la saaba ya amoon dagaayu baaxe ñekkaloon yal nañ ko am fi saaliw moo leen fi wutu moo di ñoom sun boroom sunu moo nu fi jaamu sun boroom sunu digg sunu boroom moo nu fi doy moom saaliw mboolem lu yàlla ma samay wàlli wiig lu ma samay labdaal yi yàlla na ko may waa ji di seexi saalim lu ma samay xutbu zamaan lu ma samay xasu samaan lu ma samay fii fi zamaan yàlla na ko may seex saalim nii leen amiin te dégluwaat saa xol bi fees na bay rogaat xel takkuwaat na tey xalaat ngir tagg Seexi yàlla nu buur dolli dimbal bañ sax di xëy di ko dawal guddeeg bëccëg bañ a dalal moom yi di Seexi ma wax la lëf jikkoom nga xam ne kii amul moroom moo mën a jaamu sun boroom mooy ci tudd saaliw ma wax la lëf ci ay jikkoom nga xam ne kii amul moroom moo mën a jaamu sun boroom mooy ci tudd saaliw kii ku mu gën teewul nga baax sëriñ bi mooy ki jàll baax waaju ko topp am lu baax xanaa sa seexi saalimu kii ku mu gën teewul nga baax riñ mooy ki jàll lu baax waaju ko topp am lu baax xanaa sa seexi saalimu xayrul waraa gën ji mi bañ ne ko yaay gën ji mi تقول أيوب بدل لسو قد سسي خساليو بنيكو يا اي جندي من ديف تقول يوسف دل لسو داود تقول مسوق قد سسي خساليو صلي صلاة بالسلام عليهم على السلام يا ربي خالق الأنام بجاي سيخ سالم أقول المرام في عبدنا قسي مرام جنبنا نانا نعم القلال جادنا يلا نقود فانتبر أمول مرام في عبدنا قسي مرام جنبنا ñaanal kolaane jaadu na yàlla na gudd fan te kaweem gi biir na kuy mbindeef bëgg mbindeef fi bañ a kuuf mooy li ko bàyyi fii fi suuf yàlla na fi ak gulaal te wér Seex jox na koy meloom yoneen ba teg cay jikoom moo tax manaa la moo di ñoom yàlla na gudd fan te wér bindee fi ñépp yem fi moom ku jaaxle boo ñëwee fa moom mu jox la ngir yàlla boroom yal na fi ak lool te wér moo mën sant mën a muñ mook Seyxu Bamba wuute wuñ du gedd waayam du ko foñ yàlla na gudd fanteer moo mën a sant mën a muñ mook say xubar wawute uñ du gedd waayam du ko foñ yàlla na gudd fanteer du xeeb biim ku doylu la ku masa xam fàttewu la ku bëgg say xubam bala kuy roy ci moom bu wér doxin wu teey walay doxe waxin wu teey walay waxe lu mën a am da koy joxe ngir yàlla yàlla na wér doxin wu teey walay doxe waxin wu teey walay waxe lu man di am da koy joxe ngir yàlla yàlla na na wér la muy liggéey mooy joxe te foog fekk muy fexe nu mën a def ba ñépp texe yàlla na gudd fan te wér fonk na lool sariyatu te boole kook xaqiiqatu aalim la jot du làmbatu du dox di laaj te la ko na lool sariyatu te boole kook xaqiiqatu aalim la jëddu làmbatu du dox di laaj ci la ko war mboolem këram yi goo ci dem def na fa jàkka fu fi dem mooy jiite mbooloo ma ndaxam moo xam mbaa fajar mboolem këram yi goo ci dem def na fa jàkka fu fi dem mooy jiite mbooloo ma ndaxam moo xam mbaa fajar yi wenn waxtu du ko ragal yàlla sax du nelaw day toog ba ñépp ne selaw mu jóg di wird ak xir kii wenn waxtu du ko ragal yàlla tax du nelaw day toog ba ñépp ne selaw mu jóg di wird ak xir waxtu wu jot mu nodduloo fu ñaala mu noppiloom ku ñàggale mu julliloo kii sunna lay jëfe bu wér waxtu wu jot mu noddu la fu ne ala mu noppi la ñàggale mu julliloo kii sunna lay jëfe bu wér ndawaaju fonko alxuraan kum yar xamal ko alxuraan moom lañ fi dénk alxuraan mu di ko xam le na wér moo bari jàmm te wolof ak taalu be a ko saf te Seyxu Bamba rek la def ci ab xolam bu wér moo bari jàmm te woyof ak taalu be a ko saf te Seyxu Bamba rek la def ci ab xolam bu wér a wér tariqatul mooy ki ci dàq tërbiya te moo ci ëppi àddiya yàlla na gudd fan te ngirum sëriñ bi calaaw di waaxu tey jóg ko daw guddeeg ba cëg mu di ko daw yàlla na gudd fan te wér la Seyxu Bamba digal sun maam yi moom la nuy digal jàng ak liggéey fonk ndigal téetéreey jaamu bu wér waajoo gërëm moom gërëm lu sell fa sun boroom te dootu menn moroom ci sant lay dëkk bu wér du sant kenn lu mënul du wax ci nit lu waxul du def lu buur yàlla bëggul maa seere yi ci moom bu wér du sant kenn lu mënul du wax ci nit lu waxul du def lu buur yàlla bëggul maa séere yi ci moom bu wér sun sang bi amul moroom ñu baax ñi réere wuñ mbiram moo tax ba duñ jóg fa wetam yàlla na gudd fan te wér billaahi bari njariñ sëriñ si moo muqaddisin suyin saamaas gi moo leen di jëriñ te yëgal ak yàlla moo bëri njëriñ sëriñ si moo di seen sëriñ saamaas moo leen di jëriñ te yëgal ak yàlla am na yërmande waajum jaboote du yal na kuréer bi jàppandi te yal na gudd fanteer maandu gawoon ke Seyxuna kulla jawoon ke Seyxuna ak tey gawoon ke Seyxuna yor na ko tey yàlla na wér moo mën a sàmm kóllëre kum yar du fecci wóllëre moo tee ñu sax ci njàqare yàlla na gudd fan te moo de du moo solo adduna mi mel ni golo golo ko bu solo wuy ba jooy kamano war moo de du solo adduna mel ni golo golo ko bu solo wuy ba jooy kamano war moo tax sëriñ bi dëddu ko jublu ci yàlla fase ko te kat mu geddu ko fu mu nit ñi di ko wër moo tax sëriñ bi dëddu ko jublu ci yàlla fase ko te kat mu geddu ko fu mu tey ñu di ko wër yal na ko buur yàlla musal ci àdduna lu koy lëjal dakkul ko faw ayu yàlla tawat yi yépp wér yàlla ko yàlla yéggaleel naa la mi dolli koy ngëneel ñu nit mu delli nu cofeel ci moom fegal nu jépp lor yàlla na jàmm sax këram safaan bayal na tëb këram te yàlla na làqi ngërëmam yu sellu moom fi moom te wér yàlla nga am li ngay mébét fi nun nu am li nuy mébét fi yow te ñépp jiitu cat ci barke Seyxi Saaliw nee na miin te na selaw xeraw lu leen ma maa ngi di roy ci maam njàmme ca kaw di tagg Seyxi Saaliw amul maram sheikh Bamba jox na koy melam yonen ba tek ci jikkoom moom mi di sheikh salim amul maram amul maram sheikh Bamba jox na koy melam yonen ba tek ci jikkoom moom mi di sheikh salim aduna masla tax mu xëy bis pénc rekk rekk lay xarul li muy xëy di liggéey moom kii di seexi saaliw àdduna mas la tax xëy bis pénc rekk rekk lay xarul li muy xëy di liggéey moom kii di seexi saaliw baykat yi moo di seen imaam te musta am mbayam ku weddi laaj ko ay magam moom kii di Seyxi Saaliw baykat yi moo di seen imaam te mas lekk am bayam ku weddi laaj ko ay magam moom kii di Seyxi Saaliw deful ku topp bakkanam du dox dëgër dee ku ñoñam way joxe ñaag ñay laa jayen fi kii di ak sëriñ bi lay defal suñ la waxoon li muy dundal yey mbindéef nga ne amul déggal ma bàyyi saaliw man kaana lillaahi la wax kaana laahu looli tax yàlla ku jëf mu fay nax jaaraama say xisaaliw buur yàlla ne ku ko neal moomin nekkal la jëfal ku jëf mu fay la kon jëfal jaaraama si xisaali mu ko topp yàlla la waawaaw ne seyxu bambala sant ko sant yàlla la ku baax la sey xisaali xamal mbiram yi waane la moom natt gi ci naane la ñooyam jëfal ko jagle la moom kii di xisaalin mu ëpp yar maane ku ne moo dàqa yar ku yar gone këram dee fa dóor gone moom kii di xisaalin yarkat yi moo ci dàqa yar goneem dee ko dóori yar te du ko tee xam la ko war feeg ma ngi fa seexi saaliw ku ne këram te sàkku ku ne këram te jàng xam man mustawa xaw sikkam moom kii di seexi saaliw du gëdd nit du jànni ko du mer nit du geddu ko kum xas ba xam du fàtte ko moom kii di Seyxi Saaliw du tooñ te ku tooñ mu baal ku ñaan nu may la am na mbaal jikkoom ma ne su misaal jaaraama Seyxi Saaliw semal na tey jii duusu géej cig tabe buy joxe du biiñ day muuña muuñ ba ña di feeñ moom kii di seexi saaliw moo gën a tabe niiru taw te mos la jëf lenn banaw xeraw lu leen duma ko jëw xatma sa seexi saaliw wawa imaamul abidin wal muxlisiin ajmain fi asri wa taabiin موكتد سالم وهو إمام المؤمنين والمسلمين أجمعين في عصري والمحسنين قد استسيق سالم وهو إمام الخاسعين في عصري وتابعين والمتقين الخاتين ويجت الدسالم وهو إمام الخاسعين في عصره وتابعين والمتقين الخانتين مويكت الدسالم وهو إمام السابرين في عصره وذاكرين وزاهدين أجمعين مويك تد سالم وهو إمام الراسدين في عصره والمرسلين والمهتدين لا دين مويك تد سالم وهو إمام الطاهرين وراكعين ساجدين في عصره والافسين موي تي تود سالم وهو حبيب المرسلين الانبياء اجمعين والخلفاء الراشدين موي تي تود سالم لو ما وقت موي لو باخ واخ كو تي شيخ سالم نخ baax a jógoon di lu baax ñu wan ko say xisaaniwu loo mën a waxte muy lu baax wax ko ci seex saaliwu ndax baax a jógoon di lu baax ñu wan ko say xisaaniwu mu fa moom jàppe ko baay mu ne ko doom du ñàkk yaay منكو يا بباي يا با خنف شيخ سالم ويام فمام جابكو باي منكو دوم دنيا كياي منكو يا دي اي باي با خنف شيخ سالم بول نكو يا دي سن بروم ndax yalla keut amul morom lu weesu lii yey na fi moom baax ngi yem ci saalimu bul ne ko yaa di boroom ndax yàlla kat amul moroom ay lu weesu lii yey na fi moom baax ngi yem ci saalimu njàmme turam wi seetlu ko soo ko xamul nga ko lu yéwénul kenn bëgg ko baaxa di seyxi saalimu saalimu mooy aji yéwén su ngeen xamul tur wi yéwén déglul ma wax la ci leneen baax mën teweesu saalimu saalimu mooy aji yéwén su ngeen xamul tur wi leen déglul ma wax la ci leneen baax mën teweesu saalimu juróom ñeneenti fukki tur yu teg juróom ñeneenti tur yi yàlla sunu boroom bi yor seen boole moo di saaliwu soo ma gëmul nga laaj koolu ndem wax na leneen ne ko imaamul jaahiliin réere na baatub saaliwu na dem isib talaaji leen mbaate kowet tilaaji leen suñ ko xamul mu jàll siin jàngi fa baatub saaliw saaliw mooy aji yéwén nii la nu koy firee fi nun dun ko firee neneen feneen baax a ngi yem ci saaliw ndox mu tilim duñ ca raxas te ab tilim duñ ko fa ki nuy raxas duy ba fees mooy kii di say xisaaliw saalihu mooy ajileen su ngeen xamul tur leen nii ñu koy firee nun ki yey ci tudd saalihu sun mbir moo ko yéwénal ndax moom la yàlla yéwénal mboole mbiram dara desul moo yey ci tudd saalihu danaa la wax gaa defar bañ xëy leen siyaare far mu dal di leen sampali kër ñuy sant Seexi Saalimu bu leen ko jàppe ab sëriñ du ko neweesu na ab sëriñ doomam yi ñooy dëggi sëriñ ngir li roy ci Saalimu bu doon ne mooy gën ji mbindéef am na saaba yum yilif ya dootu ginnaaw ba gëm nañ saaliw sëriñ bi am na baabakar am na aliyu ak omar am na sahaaba yépp far ba noppi doonum saaliw baay mustafa mu laaw daawul nangoo fekk lu ñaaw dem na ba tàmbulee bi jaaw far tàggu seyxi saaliw bu sëñ bi woolu ko yib àndu mbaa mu ko lu mas a junju xam na ko fonkoon na Seexi Saaliw nda waa jumaandu woon te ragal yàlla taxoon du jëw duniyaa da ko noon gannaaw jublu ci Seexi Saaliw koo kii gaaye réere woon am kaang la woon fóore la woon lépp daf ko bàyyi woon jàpp ci say xisaaliw amoon na fiq ak tasuuf taxiita teewoon xol baloof moo tax mu daa suunu fi suuf tey sant say xisaaliw amoon na fiq ak tasuuf taxiita teewoon xol baloof moo tax mu daa suunu fi suuf suuf tey sant Seexi Saaliw daawul dox di làkki arab te dégg na xoni fa arab tasrif amoon na ci kitaab wàññi ku jàpp Saaliw amoon na xam-xam bàyyi amoon na wërsëg bàyyi ko amoon na micc bàyyi ko jàpp ci amoon na barke amalal amoon na gaayu kuy xëyal mbokkam yi daañu ku ñëwal bam laata ñëw fi saaliw Cheikh Moustapha Gueye réeréwul te ñàkkutoon te léwutoon ba tax mu bàyyi lim ne woon topp ci seexi saaliw Cheikh saaliw amul moroom moo tax mu xëy bàyyi këram di wut si cir bu gën a ci kii seexi saaliw day Mustapha rey ni jëmm ji mu nekkaloon mooy jëmmi Seex Bamba jawoon te moo di Seexi Saaliw giñ naa ne tey ku ko gisoon du rëccu lam fi nekkoon xam na ne Seex Bamba moon mooy kii di Seexi Saaliw na Baabakar Siddiq meloon te Mustapha ma mii Mustapha na la meloon ci kii di Seexi sëriñ bi wóolu woon na ko doy gaa taxoon mu wóolu ko ma sa jëm yóbbaale ko muy sant Seexi Saaliwu yal nañ ko dolli ay ngërëm firdawsi yàlla nay këram yal na fa am lu raw xelam ci barke Seexi Saaliwu yal na ko buur yàlla dugal jannatu mahwa te digal ridwaan mu dolli koo ci barke Seydi Saaliw kookale mooy Ababakar ma wax la Aliyu Badar Tuuba la nekk yor fa doom la ci Seydi Saaliw Saaliw Seex Abdulaat Tuubaa la nekk yor fa kër mooy Ababakar ma wax la Aliyu Badar kookale moo di Babakar ma wax la Aliyu Badar Tuubaa la nekk yor fa kër la ci say xisaaliwu mooy Ababakar ma wax la Aliyu Badar Tuubaa la nekk yor fa kër doom la ci seexi saaliwa saaliwu seex Abdulaat yal na ko buur bi dolli def te may ko kullama xasat ci barke baayam saaliwu huwa min ahli badar li boole kii ci waa badar déglu ma maa ngi la koy xibaar jaaraama seexi saaliwu sëriñ saali wooy seex bàmba tey jii ci xarnu bi te seex bàmba mooy yoneen leen ko waajile xarit yàlla ak beek bàmba benn lañ dañoo bokk luñ bañ bokk bëgg waajile sangub sangi yaa ngi sangub sangi sangub sangi nangum sang yaay Cheikh Bamba tey jii ci suuf si lépp